bi ñu andi ko fii waxtaane ko nit ñi jàngat ci loolu mooy xalaas mooy seen journal fait divers ma di ci ànd ak passe partout euh, passe euh, ba may gën a nekk xale damay den dégg sama maam di wax naan gone bu teggi ndawal nga <laughs> néew ma da ngaa teggi ndawal de waaye li ma def loo tey jii bu ñaaree. maa maa ngi di nga nga teggi ndawal fa yem nag. naka fa laa yem nag bàyyi yaa ngi ci jàmm. xam nga tubaab tubaab daane une fois n'est coutume. yow de wax ma la coutume waaye tradition lay mujj doon. maa maa ngi jégalu bu baax a maa lay nuyu bu baax Ndiaye di la ziar. Mhm. di nuyu auditeurs yeeg internet yëpp di ziar ñëpp. fu ñuy tàmbalee. Ndiaye. waaw fu ñu jëm. Euh, ma xool Aliou Aliou yaay guidé ma xool ma xool noo ko doxalee déedéet du bi. waaw mais nag Ndiaye. waaw Ndiaye balaa ñu egg ci loolu. Ndiaye. Mhm. réew mi. Mhm. nañ ko waxtaanee. xam nga démb maa ngi gis euh, élèves yi di grève mhm. du toj ay bus su Notre-Dame du Liban. waaw mhm. ah, vidéo yi mu ngi circulé xaw ma nag lu tax ñuy grève nee dañoo toog deux mois jànguñu. Mhm. ba ñëwoon nañ ba fii côté obélisque. mais Ndiaye dafa am ñett yooyu wax fii nii. lépp saa yu soo sooxewee rek. réew mi taxaw na. mooy santé bi. éducation bi ak justice. sama problème xam nga la. mooy man depuis que mu judd ba xamee ba tey. chaque année. nga dégg ñu ne enseignant ñu ngi grève chaque année nga dégg médecin ñu ngi grève wala greffier yi ñu ngi grève fan la problème bi nekk ki ko war a régler da du toog parce que le problème mooy gis nga xale yi doon grève fii nii ñii ñu fal nii politiciens yi nekk ci nguur gi ak ñenn ci opposant bi seen doom yi jàngeewuñ ci école yi ñuy di grève yi fajewuñ ci hôpital yi ñi ñun ñuy dem ñun ñun baadoole yi ku ci dem ci yoon boo néewee doole dëgg yaay ci kaso bi mais est-ce que nguur gi tey njaay mu woo ñu régler seen problème rek le problème mu santé une bonne fois pour tout te bañ a nekk fii tabax hôpital te amuloo personnel bu doy wala boo amee personnel bu doy tam fayuloo leen ba ñu liggéey gis nga maa ngi interpellé nga mhm. xool nga xool la. Mhm. benn rapport bu ñu invité te mu defoon accident mhm. c'est-à-dire bu waxee rek yow dafa mel ni yow yaa nekkoon ci hôpital ba yow. problème yooyu est-ce jotul ñu lijjanti ko te bàyyi nag yii détails yii ñu nekkee nii jamono yii nii. ah man de sama xalaat bu gàtt fa nga commencé muy ci grève bi. Hmm. xam nga li deug tay deug moy bo bañé ko fecc da ngay bañ ko deug bo hmm. bañé nit ko fecc da ngay bañ ko la nangu xamalé bo bañé élève yu grève da nga leen di taxaw ba duñ yegg ci grève waaye may gële ya, waaye ñi grève muy kat ci muy travailleur yi nañu xamné ci aduna hmm. amul état bu mëna matal lepp sa kër sax dang koy yor xey dépense war la fa matul nga ne soxna si nañ ko gérer ni am det aduna mhm. mhm. ni demee. ñii dañuy góorgóorlu pour muñ lele waye ñañ koy muñalit nañu xam ne ñii ñi ngi muñ ñu dëkkee wut ay saafara. ala mhm. il faut que compréhension lañ ci jital d'abord volonté top ci civisme ñew ñew ñew yeggalé ko. grève di toj di yak nak mom moy moy euh, di di di di fayu ba far toj waaw gis ñoom ñoo jiite réew mi lañ leen bàyyi ak réew mi wuy ma xam nga ñuy commencé. waaw ah man du ma maire du dara bu ñu toog fii di a wax réew taxaw na. grave am problème dañuy def Matador dégg mu wax benn bis réew maa ngi dox bàyyi fi nit ñi. réew mi daa ba demee bàyyi fi nit xam nga kii lu ko fi indi. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku ci jamono am na benn femme bu jaaxle woon lool ndax nee na. Mm-hmm. doomam ba muy nekk xale dañ doon football. Mm-hmm. bal bi dugg ci benn tool mu dem di jëli bal bi gis fa benn porte-monnaie mu jël ko jox ko ki leen doon arbitré. waaw waa ji jël xaalis ba jënd ci ay tàngal seddale leen ko. Mm-hmm. moom mm-hmm. mi jël porte-monnaie ba nag borom porte-monnaie dafa dem ci jalan mm-hmm. mu def ko loo xamante ne jii day jël. booy bi dem na bam fanweeri at ak lu teg nekk France. waaye day jël rek. yaay ji jaaxle woon ñëwoon fii ci xalaas. jooy fi jooy yu metti yëngal fi xol yu bari. ba nga xam fu mu mujj. fu mu mujj dégluwaatal fan bi. ayca. dama fi jàlloon indi sama problème mu doom. kon nag ah su ma demee tey ba yàlla def li ma bëgg ci sama doom ma am ko damay duggaat rek sant leen gërëm leen. di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilah sant yàlla bu baree baree baree bare ku dund ñaar fukki at ci sa problème mu doom. mosoo ci gis benn solution nga dem ba dugg xalaas gis ci solution te dama waxoon ba àdduna dégg ma kon damay dugaat wax ba àdduna dégg ma di leen wax jërëjëf jërëjëf passepartout la nga ne woon keroog jël nga affaire bi ama gëm naa ko tey ndax am na ñoo ma booleel nag waaw waaye da nga insisté woon ci benn numéro mooy ki dëkk mbuur bëggul sax ma tudd turam bëggul ma tudd turam wallahi la asim bëggul ma tudd turam ma nga insister ci numéro boobu nag dama dama jokkook moom moom moo expliqué ko yépp nu mu demee mu ne ma dinaa la jàppale commencé nag di jox ay ñaan sama doom li ma ci gën a neex mooy chaque semaine du toog te déggante bu may envoyé ay ñaan ci sama doom daf may envoyé pour un mois xale bi di ko naan lu muy naan rek la ko jox jox ko lu muy sango jox ko lu muy takk jox ko dara lu muy la mo fi ak légui nak xalaat dafa na amna na mois suma ma kon suma gëssé ci sama doom résultat dama leen di sant gërëm leen ñeen groupe xalaas sant na leen lool ndax taxaw ngeen ngeen ma dugal ngeen ko jàllale ngeen ko pendant une semaine ñu ngi doon wax ci sama ka ba tay yalla li ma namoon ci sama doom yalla may na ma ah damay sant yalla sant leen sant nak ki ma booleel ndax bëggul ma tuddu turam te bu fi wax ak yow ni bu toog te ma mu mel ni daal médecin buy faj benn malade te loolu dafa jafe ci sëriñ sant yàlla maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax nag bi ma duggee xalaas nag dëgg yàlla am na ñoo xam ne woo nañ na ne ma ah waroo woon dugg xalaas waaye nit ngay am fooy toll da nga yuux nit ñi dégg la te rëccuwuma nag ah li ma ñëwee woon na xalaas parce que moom dañ lay seetaan ba nga dee so defé ben affaire ñu ne la oro won def li fekk da nga dé da nga dé mais nak kenn fekk ma woon ci sama doom may daw di daw pendant 20 ans may daw bu gis mo ci borom kër kenn fekk ci ma sama doom kon nak tay suma démé bu ba li ma bëggoon ci sama doom ma am ko damay sant yàlla sant leen yéen wa sant nak ki ma booleel waaw ma ngi koy sant bu baax bu sëriñ ñëpp meloon ni moom wallahi la azim problème yëpp mais franchement sant naa leen xam nga lii lu may fàttali di dafa am benn kilifa gu mag. Mhm. jigéen ju baax ndeysaan boole naa la ak moom sax. waaw waaw waaw mhm. euh, mu wax ma kaa xalaas yi fi ma sa jaar. Mhm. moom taxawaay yu mu ci am ak ñi ay ay ñi muy àndal. ba ni ma yooyu dafay bar ngeen def success story. maanaam nit ñi di xam ne ñi fiy ñëw di jooy. wala ñi fi indi jaaxle. xalaasam ciy def lu ni lu ni mën yàlla di ci jàpp muy saafara. moo tax bi ma bi bi femme bi ñëwee. wax lii ñu ne. day baax ñi ko doon jaaxle ñi doon ñi nga xamante ne dañoo àndoon ak moom di ko jàppale. Mhm. di ko ñaanal. Mhm. ñu xam ne yàlla maanaam xale ba yàlla teg na ko ci yoonu baax. chaque fois dafay am sax. moom chaque fois day am. Mhm. mais yenn saa yi comme moom moom la wax loolu. te ji bu defee dara ci xalaat du bëgg nga wax ko. waaw waaw waaw loolu moom am na. Ah, donc xam nga yooyu aussi da nga koy respecté. non loolu moom am na. Ah, euh, kii nag. mbaas mooy sa waaj. kii dafay alerte.

tey dama pause ñëw tëdd sama kër añ ba pare di noppalu ma jékki-jékki am benn numéro expresso bu ma woo bi ma woowee nag nit ki présenté wu dafa jaar sama tur après présenté wu ne ma danga dama am sa yóbbante Mouhamed Ndiaye laa tudd dama am sa yóbbante rek rapproché waat man tamit ma ne Mouhamed Ndiaye yóbbante ma ne sama xel mais man yow yónneewu ma dara nan lay mën a nan la war a mun a demee noonu mu rappelé waat ma ne ma may ma ma gaare dama ma sa yóbbante chauffeur bis la al azar may ma ma gaare man tamit ma may ko nees tuuti mu rappelé waat ma ci beneen numéro expresso ne ma euh, yóbbante baa ngi nii ma ne ko yóbbante bi lan la mu ne ma yóbbante bi benn carton la carton ma ne ko fu mu jóge mu ne ma may ma ma xool raccroché ba mu raccroché waatee woo ma ne ma ne quitte pas teel ligne bi cinq minutes ma xool numéro bi ki ki joxe yóbbante bi fan la dëkk ak turam ak information yépp ma jox la ko teel ligne bi bul raccroché maa ngi koy xool ci agenda bi ma téye ligne bi téye ligne bi pendant deux trois minutes quatre ba cinq minutes waxul dara bu ma ko ne allo mu ne ma allo bu ma ko ne yaa ngi ci mu ne ma moom laay seet ni xaar rek may ma tuuti ba jékki-jékki raccroché troisième fois bi mu quatrième fois bi bokk mu woowaat ma bi ma woowaatee ne ma mais monsieur Diouf man maa ngi Thiès mais yóbbante bi daal dama la ko bëggoon indil man ma ne ko man nekkuma Thiès te ki la yóbbante man xaw ma ko man ñoo néewuma carton kenn woowu ma ne mu may indil carton xaw ma ko moom carton bi ñu raccroché ba ñu raccroché tuuti sama secrétaire bi woo ma mu ngi biro mu woo ma téléphone non woowu téléphone daf ma envoyé message bi ma envoyé message ne ma ndax li nga doon lijjanti mu ngi sotti man maa ko woo téléphone dama ko woowee téléphone nag ma ne ko lan ngay woowee lijjanti bu sotti ak bu sotteegul mu ne ma euh, dafa am ku ma woo fii léegi léegi téléphone ne ma ligne internet bi dañ koy coupé ndax yow yaay responsable ma ne ko du ma responsable mais bàyyil ma woo responsable mu ne mu ne ma noonoo bul woo responsable jox ma numéro man ma woo ko ci noonu noonu laa ko joxee sa numéro mu mu mu woo la après la ma rappelé mais bu may rappelé yow yaa ngi wax encore parce que daf maa ne téyel ligne bi téyel bi tey léegi léegi li nga doon wax yépp man maa ngi koy dégg yaa ngi ma doon naan demal demal demal ci immeuble bi ndax xamoo fa kenn mu lebal la xaalis nga ñëw jox ki envoyé ko ci numéro bi ndax yoroo ndax xamoo kenn seen koñ ku la mun a envoyé xaalis nga nga envoyé ko ci numéro bi ndax amoo seen kër amul kenn ku la fa mun a envoyé xaalis nga envoyé ko ci numéro bi balaa ñu may coupé ma ne ko loolu sama baat maa ko doon wax mu ne ma yow de sa baat laa doon dégg ndekete yow nit ki xam nga nu mu def balaa dafa tànn numéro rek jot sama secrétaire sama secrétaire tamit du nga ko ne euh, kii responsable bi ci la ko jox sama tour moom tamit ak sama numéro téléphone moom mu woo ma jaar sama tur jaar sama tur léegi bi ma woowee jaar sama tur xam naa tamit mu utiliser sama voix rappeler sama secrétaire bi bi ko rappeler rappeler sama secrétaire bi nag di ko laaj xaalis di utiliser sama voix man nag xaw ma loolu ban technique lañ ko utiliser ba def ko mais daal loolu lañ def dañoo dañ dañoo woo sama secrétaire utiliser sama voix di ko laaj xaalis ba bëggoon nag alerte nit ñi ak ñi nga xamante ne responsable lañ ñuy bàyyi entreprise ñuy bàyyi nit ñi kër ga bon yeeg euh, booy yeeg ñëpp ñu def attention te ku ci nekk tamit nga xam ay consignes yu baax yooy bàyyi sa bureau ak yooyu bàyyi sa kër. waay xam nga jëf na jël na yitteem yépp ñëw wax li ko dal. Mhm. bu subaat dina dalaat keneen. ci bu gaaw ñun ni ñuy déggee moo garaw. ci bu gaaw mais gis nga loolu Ndiaye démb dama koy dama ñii <laughs> ya, di la woon naan dama pànc nga ne hmm. hmm. ko ñaanal yalla mu dépanne la lo déet dam ko ci dóor dóori métti bul euh ki ni ben xalé bu jigen la bo xamné ne dafa dundu harcèlement sexuel manam jëkëru tantam fuñ ko joxé won tanta juñ ko joxoon jëkër ji moko sonal ci kër gi hmm. ak yu bari yu ci xew sax. <laughs> déglul xale bu jigéen bi bismillah. bi ma joxee sama maam léegi ma joxee sama maam sama tante laa fa ku bokk sama yaay ndey ak baay kooku sax xam ndax moom laa doon woowee yaay léegi man après bi may def seen deux dañ ma dama ñibbi ci sama yaay foofu laa àggalee seen deux après maam entrant sixième comme foofu amul sayam ñu yóbbu ma ñu transféré ma sama tante boobu ma nekk nekkaloon ci sama maam comme sëy na feneen damay bañ di tudd dëkk yi daal léegi ma dem fa doon fa jàng deux ans laa fa def man daal jëkkëram moo ma sonal moom sama jëkkëru tante boobu sama jëkkëru tante boobu xam comme man su indisposé sama biir day metti may wàccu di def yëpp benn jour nag sama biir di metti comme sama bébé mi ngi métti sama tante ni naa nañ dem tëdd si beneen néeg bi ñun ñëpp comme sa biir day métti comme ça yow nga fanaan yow kese bi ma tëddee ak moom ma tëdd ba yàgg ma sentir ni dafa am ku sama ginnaaw koy gént daal jik yàgg ma ma jóg bu gis ci këram bi retour sama ginnaaw su suma daal ba awraan di ma laal su suma ma tiit bu ma jógee nag mu daw daal génn néeg bi te boobu man ak ay doomam ak jabaram ñoo bokk fanaan affaire bi soke ma ndax premier jour boobu lu ma ko jëkkee def mais bi ma ko defee premier jour boobu bàyyiwu ko léegi day jëkk yàgg rek mu ñëw si néeg bi may fanaan man ak ñaari doomam yu jigéen ay xale lañ mais su ñëwee sama ginnaaw lay tëdd léegi mujj na mu koy def di ko def ba mujj na man nelawatuma mënatuma nelaw te man xaw ma nu ma koy waxee sama tante mujj moom buy ñëw day fay làmp torchon la yor am na si am na benn siir bu nekkoon ci biir néeg bi nga xam ne yenn saa bu ma yëgee ni mi ngi ñëw fa dem toog léegi bu ñëwee ba ci lal bi bu niitee gisuma mu daal di wàññeeku wala mu nit gis mu toog mu daal wàññeeku benn jour nag tamit ay nelaw jël ma mu sësuma ma tiit jóg ni dama koy wax sama tànt bu ma xëyee dinaa woo sama yaay ak sama papa wax ko mun ma déedéet bu ko def sànq ma sutura ngir yàlla sànq ma sutura dootuma la ko defati bu ko wax kenn ne paa bi daal dafa mel nii man xaw ma lu ko daal toujours noonu la may def su may sang mu may yër su ma nekk mu may ma fiire wala mënatuma jàng jàng mënatuma def dara bi sonnal ba nga xam ne su may sangu ma nekkee ci néeg bi mu may yërndu toujours buy télé bi da koy génne si buntu néeg bi mu teg ko biir en fait ci perron bi noonu la koy teg mais au lieu que mu fay ko ba pare koy muur pour mu lëndëm pour am pour wut nu mu pour dugg si biir néeg waaye moom kom xam na man comme xam naa ko daanaka nelawatuma mun ma ko wax kenn xamul ma koy waxee ba benn jour ma ni sama yaay man dootuma sam papa dootuma dellu foofu di fa jàng damaa bëgg ñu transféré ma sama yaay ni man lu tax ñu lay transféré bu dee da nga faa am problème ma ne ko aw ma problème dama faa bëggatul mais comme sonal nañ ma ci yi ma expliqué leen ko léegi bu ma bu ma leen ko expliqué sama yaay sama yaay wax ko sama tante. li ci topp. li ci topp ma bu ma leen ko expliqué sama yaay sama yaay ko sama amul lu may yàqu jour boobu ñun ñëpp sax moom ak jëkkëram kii kan la kii day fen ki nga xam ne taxawaal la nekkee woon fii ñu ni man dama doon taxawaal taxawaal laa fi nekk moo tax ma jàng chaque jour damay dem di taxawaal ci au lieu kon may jàng damay taxawaal ci sama tante moom remarqué wul ni sax man duma wax ak jëkkëram biir kër gi sax duma wax ak moom nii la ñuy rombante ndax ñun ñun ñaar xam nañ ni ñuy dund ci biir kër gi mais taxul mu bàyyi ma daal noonu la ma sonale man heure bu du ma nelaw guddi ak nelaw guddi aw ma ko lu bon lu ñaaw lu nekk ñu wax ma te pas boobu loolu moo jikkoom li tax ma wax ko nag dama xam ne sûrement comme man nekkuma fa dina ko def ay doomam mën nu ko def ay doomam te xaw ma xaw ma mën naa leen ci fekk loolu tax ma koy wax nii affaire bu ma metti la bu ma metti lu ma dund lu nit ñi sax man am naa ci kër maa ngi sama ci kër waaye affaire boobu daf ma remarqué te fu xalaat xale yooyu moom laay wax moom laa xam xale yooyu daanaka sama kanam lañ judd mais dama leen di xalaatal toujours dama leen di xalaatal te mënuma ko wax kenn sama ñoom yaay sama ñoom pap xam nañ lépp noppi mais pap boobu bu bon la billahi bu bon a bon pap bu bon taxawaalu kan la te xam naa ne dina yàq ay doomu léegi nag ah njaay xam nga xam nga tey njaay yaa em ya yaa em sa élément yaa yaa xalaas kon allo présidence jeex